képp koo xam ne bëgg nañoo topp boo abonné ci seen bii rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité jarbaatu fi abduloo laam mbar ba moore waa daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jarbaatu seex abduloo laam mbar ma moore waa daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jàngul ba sonn ta doon gagar ci gaaya gagoon ca lawhu mahfuus man yem naa sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dàmbe xam-xamu bi kamam booleeg sirub alxuraan naa gëm sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dàmbe xam-xamu bi kamam booleb siru alxuraan maagam sëriñ baara taalif na téere yu rëy yuy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam bindum sëriñ baara taalif na téere yu rëy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam bindum sëriñ baara siru baroot ak ca alimul xaybul tabe sëriñ daara sëriñ bu la sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu na wér bul yaanum sëriñ baara sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu na wér bul yaanum sëriñ baara sirub aroot ak bayaan ak téere yi taxa xam ca alimul xaybul lañ tëbbe sëriñ baara ca géeje xëy bu la naan ba di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara ca géeje la naan ba di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara koo xam ni kii bu musaa tàngoor ba geesu wetam lum xol takk jërit moo di sëriñ baara béjjén bu rëy ba fi daane nooru diine ya woon yàlla ko sot ba mu ñëw te mooy sëriñ baara koo xam ni yàlla da daa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 liggéeyi jaliili toppal gi Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara koo xam ni ki manu laa naan jëli damiili mes toppal ci Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara yónneen yaa xutbu yaak labdaad ya ak ñi fi woon kenn musu fee ñëw ba mbootum Sëriñ Baara ku du rasoolu te doo Cheikh Bamba doo ku no man ci tollu yoroo ndombay sëriñ baara xar baaxi seex bamba ak mbootam yu yamu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug sëriñ baara kooku rek bés bii mënoon na ko mënoon na ko woote tudde ko maamam waaye yëmuñu ci jaxasoo gi dafa dem ba yëmul rek ci diggante sëñ mbay ak ak ak ak ak njaboot gi waaye même bi fi euh, yëmul ci diggante sëñ baara ak njaboot bi waaye même bi fi sëñ a jóge loolu dafa continuer ñu continuer ci seen ci seen diggante di ko rafetal sëriñ Ousmane ku amoon ay sëriñ Ousmane moom sëñ Daaru Xasan ku amoon ay kóllëre ak sëriñ Abdul Aziz sëriñ Abdul Aziz maanaam amoon ay kóllëre ak sëriñ Abdul ak jaxasoo ba nga xam ne tey boo demee kër sëñ da nga fa fekk sëriñ Ousmane moom ma tudd yoroon na e, yoroon na yoroon na benn doomu sëñ baara bu ñuy wax soxna maam xari suñ borom dafa dogal nag amu fa tànk ku ñu wax sëñ ibrahima sëñ ibrahima su kazalik yoroon na benn doomu sëñ baara bu ñuy wax soxna hindu soxna hindu mbàkke kazalik dafa yàlla dafa dogal amut e, amu amu amu fa tu tànk waaye ni nga xam ne noonu ngay demee kër sëñ baara xasan fekk njaboot yoo xam ne njabooti kër sañ baara lañ kasaalik noonu ngay demee kër sëñ baara fekk fa njabooti sëñ daaru xasan sëriñ abdul xadim moom sëñ baara yoroon na doomi sëriñ mbay faalo ju ñu wax soxna astu am ak moom ku ñuy wax sëriñ moustapha yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ ko waaye yëmul ci loolu sëriñ abdul xadim ci boppam jaxasoo gi mu jaxasoo woon kër géej ni mu fonke woon sëñ daaru xasan mu jël doom tuddee ko sëñ daaru xasan waaye diggante bi yëmul foofu kazalika sëñ Abdul Aziz mi ñu doon tudd sànq di wax digganteem ak sëñ Ousmane moom it euh, dencoon na ku wax soxna ummi kala ndax wala soxna kala moom mooy wéyjuru sëñ Abo Mbàkke mii toog kon day ne sëñ Abo mii mënoon naa bokk ci njabootu ni mu bokkee ci sa njabootu sëñ Jaaro Xasan mënoon na ko organiser foofu tuuti ko waaye kazalika loolu dafa continuer dafa continuer ci yëmul rek ci suñ maam yooyu waaye ba ci suñu bàyyi sax dañoo continuer di am ay diggante yu rafet di ko doxante ci diggante ñaari kër yi ku mel ne sëriñ Cheikh Fatou Sylla nga xam ne mooy wajuru sëriñ Cheikh Irada mi toog moom tam dencoon na benn doomu sëriñ Modou Baara bu ñuy wax soxna muslimatu kazalik sëñ Taala moom sëriñ Ousmane moom itam dencoon na benn doomu euh, sëriñ am Koumba Suuna na ñuy wax soxna maam Ami Mbacke man mii toog sama wayjur ku ñuy wax sëñ Moustapha moo ngi ak doomi soxna soxna Xadi Baara moom sëñ Modou Baara kon jaxasoo gi jaxasoo gi ci diggante ñaari kër yi dafa am kon day mel ni fii ñu maanaam kër sëriñ Baara ak yëpp bu xewee bu ñu jëlee ab bés tuddee ko sëñ Daaru Xasan lu yay la ndax ni mu demee tax dañuy benn dañuy benn ci njaboot waaye dañuy benn ci pas-pas bu ko defee loolu bu amee rek day waral ne lii kon bés bés la boo xam ne si ne dañ koo dañ koo def ngir lan ngir fësal diggante yooyu ndax xëy na am na ñu bari ñoo xam si ne euh, loolu am na te xamuñu ko woon kon lii bu amee day mel ni day day day day fësal day fësal lu mel noonu bu loolu weesoo ñuy sant bu baax comité bi nga xam ne wala daaira bi nga xam ne ñoom ñoo organiser lii muy safinatul aman muy daaira boo xam ne lii ñu def nii dañ koo def ngir jokk ak mbokk jokk kóllëre suñ borom te loolu suñ borom digg ci ay dikk ndax lan alladina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduna al mithaq aaya ba fu mu mujj mooy ulaayika lahum uqbat daar uqbat daar nag mooy janaat na at bam bam ba mu àgg maanaam gaa yi nga xam ne dañuy sàmm kóllëre rek suñ borom suñ borom da leen dik ëllëg yawmal xiyaam àjjana àjjana joo xam ne neex na neexaay woo xam ne malaayika yi sax dañ leen fay gane si di leen wax salaamun aleykum bi ma sabatum fa niama uqbat daar kon ngir jokku mbokk ngir jokk kóllëre suñ boroom kóllëre goo xam ne ay mag dañ koo àndante woon ay gone di ko dundal wala bokk seeni doom di ko dundal ba ñun gone yi yàlla dogal di ko dundal jokk mbokk googu ak dundal ko moom moo tax safinatu amaan taxawal bés bu mel nii kon nag ci turu mboolem njabootuk sa njaro mboolem suñuy wéyjur ak ci turu sëriñ cheikh iraada mii toog ñu ngi leen di sant bu baax ci jëf ju rëy jooju wasalaatu wasalaamu ala ashraf wa ala wa sahbi wa man tabiahum bi ihsaan ila ginnaaw bu ma sant yàlla suñu borom wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gi ngërëm lu wér maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu Cheikh Mouhamadou Amine ci turu jëwriñam bi muy Cheikh Mouhamadou Moustapha di wax kon Cheikh Mouhamadou Amine mi ngi wax di fay nuyoo sëriñ Daaru Xasan Njaay di ko wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa nuyoo bi ma koy teg ci loxol sëriñ Cheikh Iraada ak ñi mu àndal yëpp bàyyi ko ci ku tedd muy Saadix muy Cheikh Abdou Khadre Ndiaye dégg nañ bu baax sëriñ Moustapha li mu wax dégg nañu délégation bi mbooloo mu foo leen yebal fonk nga kooka fonk nga fa leen yebal dégg nañ bu baax sëñ Moudou Xasan li mu wax ci sëriñ Darou Xasan Ndiaye man may sant yàlla suñu borom bi ma fekkee jataay bii nga xam ni njabootu sëñ Darou Xasan Ndiaye ca daayira Safinatoul Aman sabab ko Serigne Moustapha amal leen ay cant ak i ngërëm ak i ñaan bu dul dara njaboot gi ñëw ci ëtt bu sell bi nga xam ne seen suñu maam bu sell ja lu jiitu muy jaayante ak sëriñ bi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca weeru koor la mu jëf digganteem ak boroomam jëf ko ci alquraanul karim kaamil yam bind yëpp laa tax mu jaayanteeg sëriñ bi mu jaayanteeg sëriñ bi ñu waxante lañu wax ñoom ñaar seen digganteeg seen borom nga xam ne kenn jotu wuute ci ñaar fukki fan yaay juróom-ñeent ci atum 1883 soobu ci liggéey sëriñ bi mbooleem xeetu liggéeyin wu ne wu ñu liggéeyal góor yàlla sëñ dara Xasan Njaay liggéey na ko sëriñ bi doon na doy sëkk ñu ni la kan mooy sëñ dara Xasan Njaay ñu ni la mooy ko jiite woon sëriñ Tuubaa ñu loolu doy sëkk ci waree waree ko mu doon kon sëriñ Cheikh Irada Cheikh Mouhamadou Moustapha ak njaboot bi ñu ngi yóbbantey cant ak i ngërëm ci sëriñ Abdou Khadir ak njaboot bi fii seen kër la ci fànn yëpp bu fekkoon sax yi dox ci diggante sëriñ bi njabootu Cheikh Mouhamadou Amine Ba doxu ci te mu mel ni mu mel ci sëriñ bi am ci cër mu am ci sëriñ bi lu ñu ko tuddee yell la te war la te lu la kon tudde bi leen gi leen ko tuddee ngeen nangu ko yebal ci njaboot bi Cheikh Moustapha mi ngi sant di gërëm di ñaan rek ci jataay bi ndax ku amul yëg-yëg maa bëti xol te teewul wuute wuute jataay boobee kon ñu fas ci ñaan ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne dara dooru ko ñu ñaanal Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Moustapha yàlla yàggal ko fi may ko wér ba liggéey bu mu yéene yépp mu ne àggale ko bu barakati Rasulullaahi alayhi salaatu wa salaam ki defa atti bi itam muy Baye Ahmadou Mokhtar ñaanale ko ne ñaanal Cheikh Moustapha mi nga xam ne tey mooy moo toog jataay tey jëwriñu Cheikh Mouhamadou Bara moom ñu ñaanal ko ndax jamono bu nekk damay wax ni euh, am na lu ma xam ci Cheikh Sidi Makhtar am na lu ma xamal ci boppam ndax ku toll ni moom tawfeex ji ma defal moom Cheikh Sidi Makhtar ma ànd moom Makkatul Mukarrama fukki juróom mm-hmm. may tëdd muy julli muy fajar di ma fëgg may jóg mu may xamal di ma defal kon am xam ci moom wante day gisaguma ak wuute diggante moom Cheikh Moustapha bi kon ku dal xel la ci njaboot bi dal na xel njaboot yi kon ñuy sàkk ci yéen ñaanal ko ba liggéey bu àgg eh, sant sëñ Ahmadou mi doon def conférence bi eh, ku fi ñëw tey dolliku nga ci pas-pas ak gën a bëgg sëriñ bi bu fekkee am nga yéegee waaye ku xam wàññi Cheikh Mamadou Mourtada la yàlla defoon ci moom ci xam-xam yàlla ko yàlla yokk leer noonu rek lay mën a mel li ñu fi wax yépp nag génnul xam-xam kon day tegtale ni ku tedd ki yoo xam-xam la daan gisal ci yëpp ku muy defar ci xam-xam la lay jaarale kon liñ ci war a dégg moo di ah, xel yi dal ndax xam-xam bu mag a ci sëñ Ahmadou génn ci sëñ Modou Assal génn ci sëñ Moustapha Diagne bi wax léegi kon dañ ci dalal xel te xam ni ku am xam ku am xam-xam ñàkkuloo ndax Seydina Ali karamallaahu wajhahu yàlla da ko joxoon xam-xam le Seyyidna Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam ne moom ma baabul ulum e, waaye bëri la woon am am ci saa yi ba mu àgg ci moom muy tontu ni aw ma waaye am naa xam-xam kon li li ma yàlla cité doy na radina xismatal jabbaari fii na lanaa ilmun walil juhaali maal fa inna al maala yafna an xarin yeesal kon xam-xam mooy leen am solo kon sëriñ Cheikh euh, da ngeen di dalal waa Touba te guddi na te bëgg ko gën waaye cant yi ngërëm yi moom ñu sëriñ fu ko takk weesu na ko ku tedd ki wax ni kanzil wal xadiis wal adab laa jabro fidatin wala jabro xëy kon mbir foofu la nekk kon xale yi yéen daal di lu am euh, ngeen gën a góorgóorlu te xam ni mbir mi pas-pas rek ci la nekk nekkul ci ak yu bari ci pas-pas rek la nekk te Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu taala anhu wax ni ña jamono leen sëriñ bi bu ñu naan mukk ñu ëpp ñu pas-pas mën nañu ëpp tawfeex nag tawfeex ndax jamono teg sëriñ bi xëy di ko gis mun laan damane nga ko xam ne tawfeex la waaye pas-pas moom buñ ko kenn kon pas-pas rek mooy am solo kon yoon bii ngeen aw nga xam ni yéen a ngi dajale xam-xam yi euh, seen seen maam ñi seex moom lay baax su màggal gi ñëwee ngeen gàttandoo ko ak ay waxtaan yoo xam ni ku ci ku ko dégg di ci yaram loolu rek mooy am solo si ñu fi ñëw kon seen jëf rafet na ñu ngi leen di ñaanal di wax ak njaboot yi ndax ñi ay tur tànk am na ci ñoo xam ne sax sax bëgguñu kër di ay doom di ay jarbaat bu ñu wóoroo ci lii ñu ngi sant yàlla bu baax waaye waruñu leen a seetaan bu ñu wootee kenn ku ci kër gi wër des ñëpp war a ñëw wéetu leen waaye nag fu ñu teew teewal leen waaye ñu bàyyi xel ni dañ leen di war di wétti di leen jàppale ànd ak ñoom ci liggéey mooy am ñu sawar kon maa ngi sàkk waat ci ñëpp lu mel ni su amatee ñëpp ñëw ànd ko ñoom ci jëf ak teew ndax loolu mooy li am solo waaye kon ñu bokk rek góorgóorlu te xam ni sëriñ bi moom kenn moomu ko fële lu boppam ku am pas-pas ci moom ak ku la ëppale rek ci moom ëppale lañ sëriñ bi waaw sëriñ bi moom foofu la nekk ñii fi nekk ñi ñuy tudd. suñu maam yu baax yi sëñ daal Hassane Ndiaye ak ñu mel ni ñoom li ñu am lépp parce que leen ko wax ñoom tool yi doon liggéeyal sëriñ bi ak jumtukaay yi tool yaa ngi fi jumtukaay yaa ngi tool yi mooy fal yi jumtukaay mooy pas-pas yi kon waaye moom yaa yaa ko xam sa bopp sëriñ bi kon nañu gën a góorgóorlu bu baax kon sëñ Saliou sëñ Amadou sëñ Fallou soxna yi nga xam ne yëpp dañoo bokk ci daayira bi sëriñ Moustapha leen di sant di leen gërëm sant seen yaay yi nga xam ngi ànd yéen ci liggéey tudd nañ fi soxna Fatou Ndiaye mooy seen royukaay tudd nañ fi soxna May Mouna mooy seen royukaay tudd nañ fi soxna Moussinou mooy seen royukaay te itam ngeen gën a góorgóorlu te xam ni ak yonent lu am lu fi wàcc. waaye ba at may tukki góor yàlla dañuy ñëw te ci soxla rek dañuy jaar kon kenn ku nekk fas amal fas fas sa biir jàpp ni góor yàlla ko gi dina jaar ci man mbaa kenn coom dina jaar ci man kenn ku nekk da fasoo yéene defar sa bopp defar sa jikko ba góor yàlla yi ñëw nga jur ci kenn loolu mooy suñu lan loolu nag ay caaxaan mayewu sell set biir bitig bi ñu am soxla seen ko def waaye loolu boo koy maye ñu fas ko su góor ñi fasee loolu jigéen ñi fas loolu lépp day baax kon ñu ngi sant bu baax sëñ Abo damaa wut fii nga boo fële yow tam ñu ngi am ci yow bégte di la gërëm am yi salaam salaam di ñaan di ñaan ci barkab borom borom bis ak ki ñu ko tuddee yàlla def aar yi. di si doomu aadama yi ñu jàmm defal tawfeex dimbali ci sëriñ bi itam. waaw dimbali ci sëriñ bi ci pas-pas bi ci jëf ji ci gëm gi ci bëgg gi ba ñu xamee leneen lu sëriñ yàlla defal ko. loolu ci ngay nekk. Euh, damay damay sant yàlla. maa ngi seet bu baax ay kanam. am na kanam yoo fi seet walaay yi. ndax gis naa ne kanam yoo xam ne bu dul xale yi dañoo gis ci pas-pas.